Afia FM Afia askan wi moo ko tax a jóg. ginnaaw bi mu fësalee bii la slogan mi mu duppee wax leen ñu dégg Cheikh Bakhoum daal nay jëmmal lu ni mel ci lancement officiel mi mu amal ci Grand Yoff samedi yemook ñaar fukki fan ak ñett ci weerum octobre ci ay quartier Djida 1 2 3 Fass Missira Santhiaba wax leen ñu dégg li ko tax a jóg bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Bakhoum responsable politique APR fii ci Grand Yoff moo di jox askanu Grand Yoff kaddu ngir ñu daal di koy seeni ay jafe-jafe jafe-jafe tawat mbaa mbébét su ko defee moom ak i àndandoom benn Bokk Yaakaar yi ñu man koo boole ci seen programme de campagne ñeel élection locale ñuy mël ñaar fukki fan ak ñett ci weerum janvier ci atum 2022 ci bésu lancement wax leen ñu dégg bokk na ci li gën a fës ci ay kaddu yu tukkee ci askan wi yeewoo ci jidda 1 2 3 Fass Missirah Santhiaba bu Grand Yoff di ñakkum kaaraange wàllum insécurité dëkkuwaay yi ak li ko wër mbënd mi di wàllum inondation yi ñàkkum xëyum ndaw ñi yeneen ak yeneen a bu ma waxee ci quartier Missirah war naa cee wax monsieur Bakhoum li ñu la bëgg a ñaan mooy ñun waa Missirah sécurité sociale sociale bi sax ñun ñoo ko war a def mais ak loo xam ne yow di ngeen ñu ci jàppale danañ ko jéem environnement aussi danañ ko def ñett yooyu man moo ma soxal man ci sama bopp. may jox kaddu gi Fatou Fall bàjjanu ko ñun nag leen rek moo ñu soxal Grand Yoff moom ñëpp xam nañ ne fii bu tawee ndox mi moom dañuy sonal day dugg si biir kër yi insécurité bi tamit bari na fi Diop moom dëkk populaire la boo xamante ne dañoo soxla ndimbal jigéen ñi fi nekk it sonn nañ bu ñu xëyee ku nekk yaa ngi gàddu sa paanu jën ñii ña ngay menacé quatre heures di matin la ñuy taseeg ñoom ñii dem di jëli ay kaar ñii di dem di fobeere ñii dem di jaayi jën suñ leen mënoon dimbale si loolu maa ngi ñëw tam suñu DG Cheikh Bakhoum bàjjenu gox yi nag sama kàddu ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la ziar macha allah fàtte woo ñu benn yoon ñu nag yow si nagu tam xarit ñu yow si tabaski bi Koweït ñu fàtte Koweït doo ñu fàtte tabaski doo ñu fàtte fan yi nga ñu yóbbu ñu dem defi formation une semaine nga jox ñu ay portable jox ñu collation macha allah jàngal ñu informatique dañ ñoo yombalal suñu liggéey ku ñu bëgg a localiser dañ lay localiser macha allah kontaan nañ si yow yal na sa jàmm yàgg. man la Thierno Sall ji dëdd sama doléance si ñaari point lay nekk mooy wàllu éducation ak wàllu jeunesse wàllu éducation mooy si éducation de base ba moyen kon nu ngeen ko xamee quartier bi nekkul quartier boo xam ne dafa bëri ñu bëri am am pour jàppale bu ñu mën a am suñu mënee am politique boo xam ne dinañu mën a dimbali association yi wala jeunes yi si accompagnement man la Aïssatou Sow Pël ki tax ñu jóg tey mooy monsieur Bakhoum bi ñun nag amuñu lu dul Grand Yoff ñu ku ñu defal Grand Yoff rek la ñu bëgg Grand Yoff tilim na Grand Yoff amul sécurité ndaw yi tamit ñi fi nekk liggéeyu ñu bëri nañu trop ñun jigéen ñi dañoo bëgg ngeen jàppale Benno Bokk Yaakaar ñu yaakaar ne ne nag kii ñu bëgg fal fii nag pour mu nekk suñu maire ah suñ ko falee nag xam naa nag bu soobee yàlla yàlla dinañu fajal suñu rangoñ yëpp macha allah di delluwaare di wax ne amuñu dul Grand Yoff fii su tawee da ngay gis koñ yi yëpp dafay taa. Cheikh Bakhoum te benn yoon ci biile doxalinam jëm ci jox kaddu gi askan wi ci ab slogan mi mu duppee wax leen ñu dégg ndaxte fépp fu mu dem ñu seen ci wetam ay àndandoom ñi mu bokkal parti ràññee Cheikh Ndiaye di responsable politique APR fii ci Grand Yoff waa Jidda waa Fass Missira ak Santhiaba yëpp ñi nga xamante ne ñoo génn pour wax ñun ñu dégg mention spéciale aux femme mais à la jeunesse parce que développement bi ñu bëgg ak renouveau bi ñu bëgg ñi ciy gën a mun a profité mooy les femme et les jeunes déglu nañu dégg nañ te lii ñu fi jukki mooy wone ni ku yaakaar ne population yi yaa leen a jiitu da ngay nax sa bopp ñoo la jiitu ci lu bari tey focus group bii nii génnee na ay mébét yoo xam ne kenn mënu ko weddi Grand Yoff aspire au bonheur donc bonheur boobu ñuy njortal ñeneen communes yi dafa war a am fii ci cadre de vie bu adéquat da romb yenn gox goxaat yi fii nii vraiment boo gisee ñu améliorer le cadre de vie tu veux y passer la nuit loolu war na fi am te nit ñi wax na ko la question de la sécurité la question de l'environnement la question des inondations certain nombre d'autres problèmes yoo xam ne répercuté nañ ko léegi nag mbir mi fenn rek la des il faut un engagement citoyen moo tax ces consultations là képp kuy doomu Grand Yoff rek war nga cee mun a dugg indi sa xalaat de tout bord de tout parti opposition ñàkk opposition qu'on soit un fils de Grand Yoff rek da nga war a bokk joxe sa xalaat ba li ñuy nara na nas suba ñu bañ ko def contre toi simplement parce que t'avais pas donné ton avis et chaque avis compte moo tax dañuy félicité Daouda et toute la population ñi nga xamante ne ñoo nekk ci gox bi ci lancement bu réussir bii nii yaakaar bu juddu bu am solo Abdoulaye Ndiaye itam ginnaaw bu mu rafetloo slogan bu ni mel di wax leen ñu dégg woon fii député di itam responsable politique APR teewee woon na lancement officiel bi. population Grand Yoff fi segment yëpp a ngi fi. concept bi mooy wax leen ñu dégg maanaam. mun nañ ne nous sommes aux anges li tax ma loolu mooy que yéen population de Grand Yoff comprendre ngeen li ñu tax a jóg duñ fi nekk nag di ne dinañ def lii dinañ def lii dinañ def lii ñun ak yéen ñu ñoo koy defandoo. merci beaucoup bi ngeen comprendre concept bi bi ngeen poser les vrais problème et ñëpp noté nañ ko et ensemble dinañ mettre en place un bon dispositif seet nan lañ koy organiser seet nan lañ koy prioriser pour effectivement arriver à un développement global satisfaisant et ko yàlla ko suñu borom def en tout cas ñun li ñu jàpp mooy que ay doomi Grand Yoff lañ yàgg nañ Grand Yoff expertise baa ngi fi expérience baa suñ ko cumulé yàlla mun nañu defal ndam bu kawe suñu njor Grand Yoff dafa war a soxla un nouveau visage yéen yéen a ko wax ñun toutes les possibilités yi waroon am offrir nañ ko ci nekk ñi fi nekkoon 96 ba léegi benn Bokk Yaakaar mosul gérer la commune de Grand Yoff mais ñam leen ñu ñam leen Benno Bokk Yaakaar sunu rakk ji toog fii du tey lañ xamante yàgg na quand je vois ñoom Issa ci fut mon élève ñëw taxaw fii ne drapo drapeau blanc j'ai failli pleurer parce que ñun lii rek la ñuy ñaan APR benn Bokk Yaakaar retrouvé wu la grande famille retrouvé wu ñu jël mairie bi doxal Grand Yoff réaliser ko lii ngeen def ni bu ngeen fi jógee tey créer des comités d'action et de validation na réflexion bi continuer dans le quartier gën leen dugaat ci quartier yi wax leen li ngeen fi jëlee organisez-vous parce que yéen yéenay avenir bi yéen yéenay andi développement dëkk bi ginnaaw bu mu sàññee nopp askan wi yuy yawoo ci jidda 1 2 3 Fass Missirah Santhiaba bu Grand Yoff Cheikh Bakhoum njiital agence de l'informatique de l'État di itam responsable politique APR fii ci Grand Yoff daal dinay rafetlu bu baax a baax ay kaddu yuñ fa daal di yëkkati ba tax mu leen di tontu. di nuyu waa jidda 1 2 3 Fass Missirah Santhiaba di nuyu suñu kilifa yu ñu fi fekk imam yeeg délégué de quartier yi di nuyu suñu tant yu fi fekk bàjjanu gox yi ak faamu quartier quartier bi yëpp ñu ngi nuyu góor jigéen mag ak ndaw ñu ngi leen di remercier bu baax a baax remercier bu amul fu di leen jégaluwaat encore fois ci toogaay bu yàgg bi ñu ngi remercier nag population Grand Yoff ci lii nga xamante ne moom lañ leen woo muy concept wax leen ñu dégg wax leen ñu dégg nag bu nu ko defee dañu ko def parce que dañu jàpp ne boo dee def politique li la tax jóg mooy defar sa gox defar sa gox boobu nag du ne da nga yor sa science rek yor say idée ñëw ne man benn nit lii lañuy ñuy appliquer te keneen amul xalaat loolu moo tax ñu wax concept wax leen ñu dégg pour waxtaan ak population bi pour waxtaan ak kilifa diine yi ak aada yi jeunesse bi ñëpp ku ne mën a jox sa xalaat ci nii nga xamante ne noonu la ñu war a yoree Grand Yoff parce que ñun ñëpp ay doomu Grand Yoff te Grand moo ñu tax a jóg yéene boobu nag pour mu mat faw ñu mën a tënk programme boo xamante ne dinañ ci retrouver problématique yi ñu am ci biir Grand Yoff yëpp ci 66 quartiers yëpp loolu moom moo waral ñu def li ni mel te nag kontaan nañ bu ñu amee couche population bi yëpp tey déglu nañu enseignants yi déglu nañu bajanu gox yi déglu nañu délégué de quartier yi déglu nañu imam yi déglu nañu ouvrier yi artisan yi déglu nañu jeunesse bi déglu nañu chômeurs yi étudiants yi ñëpp wax nañu li nga xamante ne moom mooy problème Grand rawatina fii si Jidda fas Missira lu ci génn bare na lu ci mel ni problème mu insécurité Grand manque d'emploi des jeunes problème des inondations sociale bu ñu war a defal famille ak seen i activités yi ñu yore génératrice de revenus yi nga xamante ne dañu soxla ñu jàppale leen formation bi aussi revenir nañ bu ñu war a def de telle sorte que mu am adéquation formation ak emploi parce que nit ki bu la formé te amuñu possibilité insérer la dina nekk lu compliqué donc loolu noté nañu ko l'appui au daara aux mosquées aux imams réflexion fond du stade bi nga xamante ne mooy stade Grand Yoff bi terrain FC Grand Yoff honorable député ñëw na si appui au sport muy football muy lutte li ñu war a defal école yu nekk Grand Yoff loolu yëpp vraiment revenir nañ ci salle informatique yu ñu war a defal école yi am na également ñu évoqué problème mu numérisation état civil u Grand Yoff problème yu ñu ci jànkonteel pour jot sa kayitu juddu loolu yëpp ay problématique la yu ñu fi dégg pavage des rues de Grand Yoff insalubrité bi donc entre autres problématique yi nga xamante ne population yi tey wax nañu ko donc muy wane ne que fii ñi fi toog comprendre nañ enjeu bi parce que municipalité bu ñu koy wax moom mooy une administration de proximité nit yi bu ñu fàtte démembrement wu état la politique publique yi nga xamante ne président de la république daf koy appliquer ci biir réew mi ci gox yeeg goxaan yi la koy def te Grand Yoff ci gox ak goxaan yi la bokk donc Grand Yoff mënul nekk no man's land boo xamante ne benn maire moo fi nekk di dogal lu ko neex programme gouvernement bu ñëw mu arrêté loolu dafa war a jeex ci Grand Yoff bu ñu nee Promoville ñu ne dañuy ñëw pavé Grand Yoff maire bi ne déedéet bu ñu waree ñëw defar maternité defar ko aux maire bi ne déedéet politique la loolu foog naa ne Grand Yoff def ci dayal sëkk dañu war a dem ci beneen étape changement la ñu bëgg ci commune bi parce que tey gis nañu ne Grand Yoff manque de tout boo xoolee 19 commune Grand Yoff moom moo ci gën a tardé alors que ñun ay doomu Grand Yoff lañ bëgg lu baax pour commune bi je pense que ñu mën a porter projet bi nga xamante ne moom mooy transformer complètement la commune de Grand Yoff moderniser ko jox ko infrastructure yu baax pour population vivre dans de bonnes conditions loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu bëgg donc encore une fois bu fi kenn ñëw nekk ci dynamique bu man doomu Grand Yoff la ñu jël mbir mi jox la te amoon lenn loo xamante ne yaa ngi koy proposer population loolu foog naa ne dafa war a jeex ci Grand Yoff jeex ci réew mi yëpp parce que boo dee politique lu ñu la soxla moom mooy nga tabax fii nga nekk te ñun ci loolu lañ nekk ci loolu lañ leen di woo lii nag première étape la wax leen ñu dégg prochaine étape bi mooy nekk lancement suñu programme bi nga xamante ne moom mooy changer radicalement le visage de la commune de Grand Yoff te loolu yéen ñëpp dinañ leen ci woo su boobaa ngeen ànd ak ñun jaay programme boobu population Grand Yoff pour ñu jënd ko et dès le 23 janvier ñu tàmbali liggéey liy tax changement boobu nekk une réalité dans les 66 quartiers de Grand Yoff remercier aussi vraiment suma frère bopp muy euh, Zarko vraiment di la féliciter aussi courage bi nga am ci aussi engagement bi nga jël à parce que yow yow yaay identité Grand Yoff wax nga ko tey bu ñu waroon bàyyi benn bakkan yow pare nga pour bàyyi sa bakkan pour Grand Yoff donc Grand Yoff am na lu mu la jaral mais na nga xam ne loolu mu la jaral ñun exactement la ñu jaral te incha allah dinañ ànd ak yow pour que changement boobu ñu bëgg ñu am ko à partir du 23 janvier te li ñu fiy dige amul lenn loo xamante ne ñu ko bañ a def bés boo leen ñu wóoloo incha allah le 23 janvier 2022. yéen a ngi déglu seen rajo Afia FM ci 93.0. ginnaaw jidda 1 2 3 fas misira ba ci samedi ñaar fukki fan ak ñett ci weerum octobre cheikh baaxum ak i àndandoom coalition benno bokk yaakaar ci ëllëg sa yemoo ko dimanche ñaar fukki fan ak ñeent ci weerum octobre ña nga woon ci quartier scat urbam ak amo bu grand yoff foofe itam askan wi daal nañ fay yëkkati kaddu jëmale ko ci seeni ay jafe-jafe yu ñu fay dund ak yéene bu ñu am ci njiital agence de l'informatique de l'état cheikh bahum foofe itam bokk na itam ci li fa feeñ ci tawat ak jafe-jafe di wàllum insécurité maanaam ñàkkum kaarange gi ñàkkum jàppale bu ñuy nemmeeku ci wàllum njàngameek njàngale mi di éducation bi stationnement anarchique yi ak yeneen ak yeneen a directeur ñu ngi leen di dalal bu baax avec sa délégation bi fii nag ay quartier ñu bokk la Scat Urbam a ngi fi Cité Xaadim mu ngi fi ñun population bi ñun ñoo leen ko gën a jege insécurité bi mu ngi ci am pagaay bi ci tegu mooy eaux usées yi imam wax na ko léegi dañuy envoyé ci quartier yëpp di ko dale foire ba ba fii yooyu mooy li nga xamante moo ñu gën a soxal bi ci tegu mooy monsieur le directeur chômage de jeunes boo leen mënee jàppale jàppale leen parce que xale yi fu ñu am fu ñu mën a jàppandu tuuti rek di xëy dina baax ci ñun ñun waajur yi parce que ñun ñëpp ñu ngi à la Escale urbaine, ses principaux mots, c'est l'assainissement, sécurité et amélioration du cadre de vie. man li ma ci dolli rek mooy que président Bakhoum attirer attention ci l'occupation sovage des trottoirs. nit ñi amatuñu fu ñu aw dañuy faufiler ci diggante oto yi ça c'est pas normal loolu daal mooy suñu itte te nag li ma ciy dellu mooy ñun. ay mag lañ duñu neni ganaari kenn dañuy gis constater wax li ñu soxla mooy une mairie qui prend la gestion des populations gox yee gox goxaan yi mais on n'a pas besoin de mairie qui prend en gestion les militants alimentaires on n'en a pas besoin wax yëpp foofu la mairie buy liggéey toppatoo gox yi gox goxaan yi. mais maire yi toppatoo ay militants alimentaires sincèrement on n'en a pas besoin. man miy wax ak yéen indi naa fii adjoint maire bu Marseille indi fi projet yu taxaw ñu tëdd ci. ma indi fi espagnol yi. ay projet yu taxaw ñu tëdd ci. sincèrement. man de maire yi bii moom doyal ci ñoom sëkk sëkk sëkk. man bàjjen Aminata Mbuub bàjjen amoo Grand Yoff li ñëpp wax rek moom la ñuy wax mooy changement la ñu bëgg Grand Yoff bu bees tàq la ñu bëgg te buñ koy am ci Cheikh Bakhoum lañ koy amee te incha allah dina am ci kàttanu yàlla ak mbaaxu yonent bu tedd ba ca Médina problème mu amoo Grand Yoff ak suñu gox bii ak suñu cité yi mooy sécurité bu ñu jógee ci sécurité ñu ngi jool xool ci suñu doom yi jeunes yi ku ñu leen jàppaleen ñu liggéey ñu jël di jàppale jigéen ñi jigéen ñi bëgg nañoo liggéey bëgg nañu def formation kon ni nga ko defee bàjjeni numérique yi suñu tali yi tamit bëgg naa nga xoolal ñu ko defaral ñu ko ba mu set ndax fii ñu toog nii tali la waaye doo gis tali suuf rek ngay gis te ku ñu ko tonnil ngay jël suñu koñ yi tamit ku ñu ko paaveel ñu jël ñun daal ñu ngi lay sant di la gërëm di la ziar ñoo ngi ca ginnaaw foo ñu woo ñu wuyul te neexee yàlla ak yonent bi bu la 23 yee dinañ jox maire bi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam man maa ngi tudd El Hadji Samba Ndiaye je le président du mouvement 3S mooy seetal suñu escart urbain 26 cités yi nii ku ko xam-xam nga ne la mairie de Grand Yoff mën nañu tey budget je pense que 85 pour cent si yi la jógee damay gis bu ñuy cër wala bu ñuy joxe dara dañ naan ah ñeere dafa mel ni ñoom soxlawuñ dara ankay ñoom ñoo soxla dara dañuy góor rek toog loolu ñun ñoo ko war a bañ ñun ñu dëkk si cité yi deuxièmement luñ soxla mën nañ ne bëriwul soxla nañ wàllu paval deuxièmement wàllu sécurité mën nañ ne sa du atu si wàllu mairie sax parce que beneen état la gën a nekk mais it ku si nekk gox ba nga dëkk am nga noo xam ne peut-être ne ne gis nga ne sa gox nii mën nañ organiser wu dem si ñu war a dem pour au moins ñu am benn comité boo xam ne dinañ ko def jéema a suñu koñ surtout wàllu cadre de vie cadre de vie moom lépp looy politique da defoo ko ci da ngay échoué social baax na lool neex na lool mais am na ñu ko soxla am na ñu ko soxlawul mais boo génnee defaral tëli bi yaakaar naa tëli bi ñëpp ko soxla kon dama bëgg ngeen bàyyi si xel bu baax di leen encouragé ñun daal li ñuy wax moom mooy nga jàppale ñu ci sécurité koñ bi xoolee quartier bi fu nit ñi gaare dafa am problème man j'ai amené ici au temps de Mamadou mbay des Danois à propos du rond-point ñu def ko parking souterrain oto yi mën fi gaare parce que buntu kër goo fi dem tey dafa teg ay bidoom kenn du fa gaare da ngay am gan sax du am fu mu gaare tey rafet na tey ñu def journée de l'excellence def ko ci rond-point mairie bii nga approché toutes les écoles parce que pédagogue yi nga jàngee yaag suñuy rakk fi jàngandoo tey suñuy rakk am nañ ay diplôme ñi ngi fii di liggéey war ngeen dajaloo ngeen def ay journée de l'excellence dem ci au niveau des écoles xool les tableaux d'honneur euh, primé leen ci euh, rond bi fii bis buñ ko fi defoon day tax sunu doom yi gën a góor góorlu ku ci nangul woon jàng dana bëgg sa gis sa moroom tey Cheikh Bakhoum moo def journée de l'excellence jël ay ordinateur jox leen sama doom bu nanguwul jàng fekk doomu kii nangu naa jàng dana def effort pour mën a góorgóorlu te yooyu yëpp mosul am fii ci Grand yof ci Scat Urbam bii nii mosu fi am ñun mos ah man de mosuma ko fee gis te loolu lu rafet la woon pour nga mën ko fi organiser néew nañ doole lool ñu am xale yu nangoo jàng lool problème mu inscrit corruption sax da leen di tëgg wala problème mu jënd fourniture sax daf leen di tëgg war nañ leen distribuer fourniture yooyu yëpp nag ñun war nañu taxaw sa ginnaaw ñu góorgóorlu ñu jàppalante ci pour koñ bi jëm kanam Scat Urbam moo ñu ñor amoo Grand Yoff moo ñor man côté sécurité man moo ma xawoon inquiété donc depuis ma nekk Scat Urbam insécurité bi dafa bëri benn espace public lañ fi am muy rond point da nga fay taxaw di snap ñu këf sa téléphone amul sécurité ñu defal ñu fa benn wifi cité bi yëpp fa la daje di snap parce que dégg nañ ne sax euh, loolu Cheikh Bakhoum moo ko def mais bu ñu ci mënoon booleel tuuti sécurité tamit dina baax tey ji yàlla bu dogalee ba nga jël mairie bi nga dimbali ñu ci don yi niñ koy joxee rafetlu wuñ ko da ngay gis suñu ay moroomu yaay nekk ci mbedd yi di fi rend la journée di jël ay juróomi kilo soble je pense que tey ji waroon nañu mën a jël benn oto ku ci nekk ñu def sa tuuf fëgg sa kër guddi woola ba nga génn nga génne sa carte d'identité ñun la am ñu ne la yi yàq moom kon nañu changé méthode bi ñuy joxee don yi ñu dimbali ñu ci wàllu fourniture di dem ci école yi di fa bàyyi ay fourniture yoo xamante ni bu la yàlla dénkoon maire bi ñu ni Cheikh Bakhoum yóbbu na ci par exemple John Wesley bi sama doom yi di jàngee ñu ni Cheikh Bakhoum moo leen may livre yi jàppale Cheikh Bakhoum mooy jàppale suñu bopp en tout cas fii ci bi ñi nga xam ne ñoo ma fi fekk naa leen ñu ne duñu APR mais Cheikh baaxum la ñuy voté local ndax li mu def moo leer loolu mérite la je parle sous le contrôle de sensibilité politique yëpp fii ci koñ bi leader bu mel ni yow la ñuy ñaan la ñu yéene suñu bopp fii lu yàlla def dañuy dem de mais yow su président Macky Sall bëggee jàmm ci secteur bi yow la fiy jiital yow la fiy teg wax ji wax ji mooy ñun ñëpp ñu jox Cheikh suñu carte cuuj kenn du ko laaj ay nen da ngay fexe mu màgg rek lépp a ngi ci biiram kii bu jotee li mu bëgg loolof di wax kuy raam di la fopp bu taxawee da lay tingoom ci secteur bi xam nañ secteur informel bi xam nañ lu nit ñi soxla damay dugg ci école yi ñu wax li nga leen ñuy waajal ak li nga leen defal centre Aminata Mbaye laa jóge bërki dem ñu wax ma projet bi nga leen yéene doomu aadama des na ko booleeg alalam duma boole koog darajaam duma waaye desu ko booleeg yaram ak tegginam duma te xam nañ ci yow yar ak teggin waxaat naa la ko ca référendum ba waxaat la ko ci présidentielle yi ci daara ji fii yorunu garam place daara la ñu yor fii ci mbedd bi la toog ku nu yëg xam nañ ko ku nu xeeb xam nañ ko waaye nag dox boo gis ci kër la yeewoo seex bu la yàlla joxee li ngay wut am na lu nu yittewoo fii nun liggéey la ñu xam jaamu yàlla jàng xasida laa alxuraan yàgg nañ fi nag yàggunu fi waaye def nañ fi 24 ans ci daara ji loolu yàgg nañ fi sécurité sociale santé es yooyu soxla nañ ko ginnaaw CFA Cheikh bàyyi loolu xel am nañ ci yow yaakaar trop koo yëg mu yëg la sëñ Abbas nee na ku falu bul fàtte li la fal fuuyoo koy waral mbaa fàtte waaye ku falu te fuuyoo fàttewoo ko la fal du boobu buñ la bëggee fali du sotti ndax ka falay tax ki tax nga tax li nga doon na da ngay tax mu tax ba kër ngay toj tax yi waaye boo toj tax yi yaa fiy nekk woote ñu wuy sal dafay neex lool waa Scat Urbam chapeau bas monsieur le futur maire de Grand Yoff bés bu la yàlla joxee nga ñëw war a doon na ñu lay installé ci mairie bi su boobaa j'espère que ni yëpp di ko matale incha allah yàlla nag moo mën a matale waaye di nga sa def sa kémta benn pooj

la République, la famille républicaine, la famille de Benno Bokk Yaakaar qui incarne ce changement et incha allah soir du janvier dina am ci Grand Yoff. tey suñ fi toogee nga créer ce concept indi cadre d'échange bi kon dara ñorul la lu dul que la coalition l'emporte au 23 janvier. Cheikh wax naa ko sànq soo ma yëgul woon du ma fi ñëw damay toog tukki nekk bitim réew sax Ibou Faye woo ma ne ma yaa moom lii. du ma nekk Sénégal sax ñu ne ma yaa moom lii kon kooku kooku ku la yëg moo la koy def. mais tey suma dégloo ñëpp ñi wax fii dégg naa éducation santé sociale dégg lu nekk sécurité bi moom foog naa ne moom fi njëkk man Grand Yoff traditionnel laa dëkk. cité millionnaire laa juddoo màggee mais tey képp ku leen wax ni commune de Grand Yoff soo leen ko joxul la coalition Benno Bokk Yaakaar mu jébal ko Macky Sall waxul leen lu dëgg lii nii ñëpp wax doléance yi pour mu mat dañuy fal ki nga xam ni moo bokk soit si l' alliance pour la république wala moo bokk si coalition Benno Bokk Yaakaar pour président mën na jàppale du ma ne président jàppalewul maire bi de mais président tey su jógoon pour indi lu muy def pour mairie bi da koy bloqué pourquoi parce que du ko arrangé dañ naan état moo ko def donc man ñëpp Cheikh de seen doom la nawloo ngeen ko ñun tamit nawloo nañ ko lool donc man de yëg bi nga ma yëg moo tax ma bàyyi sama lépp ñoo toog fii ci say kanamu nawle say kanamu waajur te li ñu fi wax yëpp tamit dëgg la ci moom. il faut que population jël yi fi en charge. wax ngeen fi question éducation. wax ngeen question environnement. wax ngeen question santé. wax ngeen question sécurité. loolu maire bii ñëw ak yéen population yi. yéen yéen a koy defandoo ensemble. te am nañ yaakaar ne Cheikh. sera le prochain maire de la commune de Grand-Yoff mébét la te am nañ yaakaar ne suñu borom dina ko def li ñu dégg démb jida pratiquement moom lañ dégg tey fii donc Grand-Yoff est malade en 96 lañ érigé Grand-Yoff en commune d'arrondissement maintenant c'est une commune de plein exercice il faut que la stratégie change il faut que l'organisation le dispositif organisationnel change mais également il faudrait que approche yi change loolu nag li ñu ko may ay ñoo xam ne dañu am intelligence am nañ background bu taxaw te am nañ volonté pour réussir te je crois que l' bi ñu nar a mettre en place compétence yi ñu soxla yëpp dinañ ko am incha allah donc la xale ñëpp daal dégg naa fi tey ay doyen yoo xam ne ay identité remarquable de valeur lañ ils seront tous mis à contribution pour faire avancer les choses donc gars yi fi ngeen téye foofu la nañu cultiver l'union sacrée autour de l' essentiel et cet essentiel la c'est que ñun ñëpp ñu nekk autour du candidat proposé par le président de la République et incha allah nous allons gagner ces élections sans problème je vous remercie. di gërëm ki nga xam ne ne nag moo waral lii muy kenn ci man ndax defe naa ne dëkkandoo day sonal nit moo tax ma am xër-xër ci moom ndax xam nga lan muy yaram ak teyam buy waxanteeg yow sax booy xëtt xëtt sax buy waxanteeg yow di nga mujjee tey Cheikh nag. ba mu tàmbalee jidda ba pare mu ne Scat Urbam fi mu dëkk jàngee fi am fi licence ba ñu nommé ko muy directeur général de l'ADIE bokk CCR bokkoon COJER tukki barki démb ànd ak président de la république kon seen xel na dal bu ma kenn laajte ndax Cheikh la ñuy jiital ou pas kii jiital nañ ko ba pare kon nag nañu ñëw ci liggéey bi parce que dans la vie il faut ngay am ñu mel nii Cheikh Bakhoum sa wet man duma la jay ndax lépp loo ma defal fekk nga ko fi lépp loo ma defal sama baay defaloon na ma ko en tant que directeur général kon kooku moo la jiitu si directeur général lépp loo ma defal sama yaay fonction publique mi ngi nekkoon ci building primature fa la retraité kon nag dañ ne wax leen ñu dégg gars yi maa ngi yemale fii di leen ñaax au soir du 23 janvier ñu voteel suñu coordinateur bu ñaawul mi muy Cheikh Bakhoum. ginnaaw bu ñu fësalee seen i ay jafe-jafe tawat ak i mbébét Cheikh baaxum daal na xamle ni dégg na bu baax a baax askan wi yeewoo ci Scat Urbam ak ci amoo bu Grand Yoff. tey nag dañu woote ci waxtaan ci Scat Urbam cité Khadim amoo Grand Yoff waxtaan ak population bi ci li nga xamante ne moom mooy mbëbëtu Grand Yoff ñu tuddee ko wax leen ñu dégg. tey nag dégg nañu parce que kilifa yi wax nañu jigéen ñi wax nañu jeunes yi wax nañu bijoutiers yi wax nañu sportif yi wax nañu étudiants yi wax nañu chômeurs yi wax nañu ouvriers yi wax nañu donc couche population wu Scat bi yëpp wax nañu ñu ngi leen di gërëm ci loolu. suñu ko résumé nag daanaka cinq pàcc ñoom ñoo fi jot génn benn bi mu nekk le cadre de vie évoqué nañu problème évacuation des eaux usées, pavage des rues, assainissement, occupation sauvage des trottoirs, gestion de l'insalubrité, reboisement et espaces verts, création de parkings, organisation des espaces de collecte d'ordures, installation anarchique des mécaniciens. également beneen pàcc bi mooy cadre sécuritaire bi muy problème insécurité bi comité de sécurité de proximité beneen pàcc bi muy wàllu emploi nit ñi évoqué nañ le problème du chômage des jeunes mais également le financement des projets des jeunes et des femmes le traitement égalitaire des offres d'emploi l'insertion des jeunes diplômés et la facilitation de l'accès au premier stage loolu nekk na ay points yu ñu fi évoqué également am na benn pàcc bu am ci waxtaan bi muy wallu éducation bi évoqué nañ fii équipement wu daara yi nekk Scat Urbam également nu ñu mën a accompagner les élèves pour les encourager ñu war a mën a participer ci remise des diplômes au niveau des daara l'organisation de journées d'excellence dans les écoles la promotion et le parrainage des meilleurs élèves dans la commune appuyer les parents d'élèves en kit fourniture scolaire également beneen pàcc bu mujj bi ñu évoqué mooy wàllu action sociale ci soutien bu ñu war a jox ndaw ñeeg jigéen ñi pour l'accès au financement notamment avec des instruments yu ci mel ni DER les groupements de femmes en général et prendre en charge la scolarité des enfants pour les familles démunies donc ci tënk loolu moom moo judd ci waxtaan bi donc foog naa ne population Scat Urbam comprendre nañ bu baax concept bi ñu teg muy wax leen ñu dégg te lii ngeen fi def ñu jàppale bu baax ci nii ñu bëgg yore yoree Grand parce que ni ko Cheikh Ndiaye waxee sànq jamono dafa toll foo xamante ne lépp dañu koy tabaxandoo ak ñii nga xamante ne ñoom lañu ko jagleel moom mooy mooy la co loolu moo tax ñu indi concept bi parce que nit ñi boo leen bëggee lee indil politique publique te waxtaanoo ak ñoom ci njëlbeen nga boo tojoo sa bureau bind sa programme di nga def ay programme yu bëri yoo xamante ne méngoowul ak jafe-jafe askan bi loolu moom moo waral ñi def li ni mel pour mën a tënk nag suñu programme programme boo xamante ne moom mooy sukkali Grand Yoff moom mooy changer définitivement le visage de cette commune parce que loolu moom mooy suñu yéene en tant que fils de la commune mënuñu gis Grand Yoff nekk commune bu gën a tardé au niveau de Dakar de 19 communes te tey ñu xar suñu tànk tubéy pour loolu mën a changer loolu nag lii mooy tàmbali bi te yéen yaa ngeen ñu si jàppale donc ñu ngi remercier population bi yëpp vraiment ci mun ñu wuyoo mun ñu jàppale ci ay idée lii tax ñu mën a jël en charge définitivement les préoccupations de Grand Yoff encore une fois situation bi fu ñu ko natt rek dépassé na foofu problème yi ñu fi évoqué au niveau de Grand Yoff daanaka bu ñu koy lim fii du ñu fi jógee mais clairement il est temps que ñu am une équipe municipale sérieuse une équipe municipale digne de ce nom qui pourra non seulement répertorier les problèmes au moins, mais également ñu nekk une oreille attentive pour la population de Grand Yoff. tey mairie ba boo fa demee am sa problème dina jafe sax ñu déglu la waxtuma laa ñu régler sa problème parce que dispositif d'accueil bi sax amul foofu donc loolu mu nekk loo xamante ne il faudrait que dans trois mois loolu yëpp changé ñu mën a dugg ci beneen ère ère modernité ère boo xamante Grand mën a gis leneen lu bees pour mën a changer situation ndaw ñi parce que problématique du chômage nit wax na ko fi sànq problème majeur la pour suñu réew pour Afrique pour àdduna bi yëpp rawatina coronavirus mu fi dugg si ñëpp gis nañ ne que jafe-jafe yi bari na ndaw ñi pour ñu insérer wu difficile na président la République sax jël na un programme inédit pour recruter plus de jeunes mais loolu ñëpp xam nañu que tayul parce que ñii arrivé dans le monde de l'emploi dañoo bari bari waaye boo xamante ne tey euh, marché bi munu ko absorber donc il est important au niveau de Grand Yoff ñu mun a am un dispositif de proximité boo xamante ne dina mën a non seulement recevoir la jeunesse mën leen a orienter mën leen a dugal ci ay formation yoo xamante ne dinañ ci mën a jëlee ay débouchés parce que y en a beaucoup mais malheureusement la jeunesse amuñu information yi donc temps que dispositif boobu ñu mun ko def Grand Yoff pour mën a orienter la jeunesse mun leen a jox plus de possibilités que ñu mun a am xëy loolu c'est important te tey bés ñu jëlee mairie bi le premier dispositif qu'on va mettre c'est vraiment cette maison de la jeunesse qui va orienter la jeunesse jusqu'à son insertion pour mën a jël en charge seen bopp donc loolu c'est important volet social bi moom du ma revenir parce que ñëpp wax nañ ko mais je pense qu'on doit pouvoir xamante ne dinañu jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a démuni dans cette commune mu war a mu bañ a nekk rek mbiru parti politique boo bokkee ci parti bi ñu jox la boo bokkul ci parti bi duñu la jox loolu dafa war a jeex on doit pouvoir aider les population qui en ont besoin je pense que ci loolu lañu ñu bëgg a la commune de Grand Yoff jox ko vraiment beneen dynamique sous l'éclairage de nos aînés bien donc ñu ngi gërëm ñëpp di leen wax waa Scat Urbam ñu ngi leen di jox dig daje très prochainement pour vous présenter notre programme qui va transformer radicalement la commune de Grand Yoff et plus particulièrement les nouvelles cités et la cité de Scat Urbam amoo Grand Yoff cité Khalil. juróomi ci ay semaine la Cheikh baaxuma ak i àndandoom coalition Benno Bokk Yaakaar daa di appal seen bile wërngël mi ñuy amal ci Grand Yoff njiital agence de l'informatique de l'État fas lam dugg ci bépp quartier mi ne ci Grand Yoff jox askan wi fa yeewoo kàddu ba noppi nag jàkkaarloo ak ñoom di leen di déglu lu ni mel moo tax a jóg mbébétam bile di wax leen ñu dégg su ko defee lépp lu tukkee ci weccoo xalaat ya mbébét ya ak jafe-jafe ya ñu mun koo boole ci seen programme mi ñu fas yéene tëgg ñoom ña ci mouvance présidentielle bi jëmale ko ci élection locale yi fii ci Grand Yoff